excusez-moi ñoom honorable dañu woote li nga xamante ni moo di rupture rupture lañu woote moom la ñu jaay sénégalais yi ba ñu fal leen def nañu déjà trois mois est-ce que yow en tant que sénégalais déjà avant d'être député est-ce que li nga gisagum dal na sa xel. ah am na rupture de seen yenn côté yi. ci ban côté nga gis rupture bépp sëriñ buy dee passe passe bi ñu nangu ñu nangu ko loolu rupture la. Mhm. sëriñ sëpp amatuñu passeport. passeport diplomatique sëriñ si doon jox aw jiw yëpp ren amuñu jiwu mhm. amuñu traiteur loolu ko rupture la lu baax la de mhm. loolu lu baax la de mhm. alors euh, Bassirou Diomaye Faye di président de la République son excellence naka nga gisee taxawaayam ah taxawaay ah, baax laa gis rek parce que nit ku baax la ku yaru la mu ngi liggéey. waaw ah. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko aussi. nit ñi dañ jàpp ni dafa ëpp li nga ko doon doyee. ah non non ëpp lu nga ko doon doyee parce que Ousmane Sonko li mu agsi dafaa te nit lu mu am da nga nangul. man gëm naa ni am na yéene pour liggéey. Mhm. mais il faut moom équipe benn mënut a liggéey. parce que li nga doon wax opposition mënoo ñëw au pouvoir et ko mënta am il faut que nit ñi problème d'entourage la am. problème entourage boobu nag dafa yàgg si moom. Mhm. parce que Ousmane Sonko même bi mu nekkee opposition man ak moom ñuy ànd mel na mën naa ko doon wax dëgg parce que ñu def ñëpp ah, ah moom boo waxee moom dara daf lay jànni wala wax wax ju gàtt. ah bon il est comme ça. il est comme ça Ousmane Sonko dafa a mer. <laughs> loolu moom loolu moom man xaw ma ko woon xam naa ñu seetaan xamuñu ko woon sama xarit la mais loolu ma am. ah bu génnee du wane loolu de bu ah, génnee dafay wane nit ku vraiment Ousmane Sonko dafa dafa am caractère laa la wax ndax ñi ànd ak moom day bari ñoo xamante nii seen bopp moo la ñor mais réew mi ñor leen Ousmane ñor leen te tànk yaa ngi ànd ak Ousmane da nga am tur da am post bu dee joxe da nga am xaalis parce que nit ñi dañ lay jox comprendre fi may waxee mhm. loolu moo tax nit ñi si baree baree bari mhm. xaw ko ragal mais comme man yàlla dogal na tur bi am maa ko ëpp tur. Hmm. maa ko ëpp alal. Hmm. te sama nguur du jeex te ñoom fukki at la ñuy def bu bëree bëri. kon oh daaw itam sa alal ngeen tudd foo ko jëlee. sëñ Bamba ma ko jox war nañ laa kii de nu mu tudd Issa prête moi le mot war nañ laa audité de. man yoruma yoruma nguur di war nañ audité sëñ Ba xaalis sëñ Tuubaa laa yor.